waa léegi nag joom lii xam nga tax ma ne la du ma jox kenn responsabilité bi moom laay jox responsabilité bi joom waaye joom yow naka ngay nekk ponkal magum jëm nga yor ay soxna nit jox la kër jox la oto di xëy di la joxal dépasse nga yaakaar loolu dafay continuer loolu du loolu loolu sa baay bi la sa baay bi la jur sax mun la ko defal muy continuer munul nekk kooku tamit nekk nekk kilifa yor ay doomam yor léppam yàlla tere moo ngi dund yàlla yéex bu génnee àdduna yow foo jëm kër gi nga dëkk sa tur nekk turam nekku ci léegi foo looy taxaw di wax ci mirage ba ah fii de dama bëggoon ngeen bàyyee ma ko seen papa ma ko joxoon dañ lay génne ci biti nit moo barul di wéeru joom damay ne waa ji ferme comme li ma la waxoon dama koy condamné ferm yow yaa war a dem xëy dem liggéeyi joom nit ki xoolal toog ci benn baraak buy senn wala tëdd ci néegub ñax buy senn moo gën nit ki di joxal di xëy di la joxeel dépasse ba pare ba pare di la defloo ay sale bulo ndax moom boo déggee li mu wax xam nga lu mu wax non man li ma xam dafa bari nit du li nga yor say milliards rek nekk di di nekk di def lu la neex xam naa lu bari. li nga xam lu bari nga nga muñ nga noppi lu ma 30 ans wala 25 ans nga xam ne loolu mu ngi jeex nga bëgg a ñëw sama mbokku patriote yi tamit yéen laay waxal chaque jour nit jógee fële ak problème am ngeen bëgg koo yenu lu ngeen ciy yenu lu ngeen ciy yenu ñaata yoon la Ahmed taxaw wax lu nekk Ousmane Sonko. ndax est-ce que waa ji mës naa génn taxaw wax musul génn wax bu ngeen amee cagnotte bu ngeen di defal man de bu ngeen defee cagnotte sama ñaat dërëm du ci dem li may wax nag man la ara man la engagé waa ji li mu nekkee ginnaaw yàlla ak yonent bi moo ko teg boppam ndax am na loo xam ne yàlla du wàcc di ko defal doomu aadama yow nga yor njaboot juddu yor ay soxna ñu defal la kër jox la lépp Ahmed nag waa ji ñii di saaga di wax nangam ah kilifa la nangam déedéet def leen nàng dafa am ñaari yére yu Ahmed yor Ahmed dafa yor yére doo benn boo xamante ni doomi kilifa la yaayam di Chérif Akan baayam di maam xalifa Niass di taaw maam El Hadj Abdoulaye Niass loolu kenn du ko weddi Ahmedu kilifa la waaye dafay politique bu leen fàtte loolu dafay politique. képp koo xamante ni yaa ngi politique problème boo am bu nekk ñi ngay bokkal ci géewu politique bi dañ ciy taq rip dañ ciy dugg na ci paccax loolu il faut ngeen bàyyi ko xel di saaga ay nday ak di dugg fi ak di dugg fee ah, loolu ah. amul kenn koy nekk ci àdduna ci kaw suuf am droit taxaw di wax ci ah. waajuru jàmbur di ko saaga ndey bàyyi leen loolu ngeen di def nit ku ku baax day am kilifa nit ku baax day am ay yar nit ku baax day am ay teggin li ngeen di jëf seen digganteeg yàlla Ahmed du leen ko fajal keneen du leen ko fajal joom man xam nga li ma lay wax li ma la yàggoon wax fii laa lay wax d'accord am na loo xamante ni nit ki yàlla du ko ko defal moom moo jóg mu dem defali ko boppam. bu ngeen ñëwee ne eh, non man kilifa bi sëriñ bi ma xamante ni moo ma jël jox ma wird laa la wax de. di tudd samay doom su ma xe su ma teg xewlee mu ñëw. Mhm. su ma amee lu may yëkkati loxoom ma jox ko loolu laa gëm. waaye demuma mhm. ci di wéeru ci moom ngir am am ma jox la. am ama joxe la dépasse fii ama joxe am na sëriñ su bari ñoo xamante ni ñooy joxe ta dépasse seen seen kër taalibe yi loolu moo dul yoon. demal nga liggéey. demal nga liggéey nit ki day bàyyi di dépendre amul sëriñ amul ministre amul amul amul amul amul amul mbindeef muy dox ci kaw suuf moo war a wéeru ngir sa dund ki parce que kooku dafa yor dund nga yor dund yàlla jox ko dund jox la dund yàlla ne maa yor bakkan nu ma neexee laa koy jëlee. léegi bu xëyee kooku dee yow yow mi wéeru woon ci moom foo jëm. <coughs> amatoo dooloo def nooy def da ngay dem sàcc ji. dina doy waar. waaw loolu nag kenn du ko defal kenn nit ki boo koy defal boppam doomu aadama day xam boppam. yow daal moom yow daal moom euh, yow daal euh, problème bi yëpp yow moom moom waa ji daal comme li nga waxoon sànq moom ngay wax da nga condamné ay jëfam moo nekkoon ci yëppu boppam bañ a toog fii di wax ay waxu naq sax nangam. du waa ji kese dama ne la bëri na ñu koy def Sénégal laa la wax. toog ci bopp koñ nit ñëw jëkkati dix mille francs jox la ngay ngay di xaar pour suba pour mu jaaraat fa jox la ko dépendre lañu war a bàyyi ñun ñëpp dañoo war a jóg xar suñu xata kutu xata yi toj suñu xere ndende yi dem liggéey yi liggéey liggéey di ko jox sa njaboot mu lew waaye nit koo xam ne mooy dundal sa njaboot yow xoolal xoolal ah- Ahmedou Ahmedou li mu wax moo gën a garaaw oustaz boobu nekk ci seen TV nee na ko yow ma yàgg ngaa ñëw sama kër ma lay jox ay saaku ceeb loolu kilifa dina ko def kilifa kay da lay jox ba pare ne la ah bugguma ma feeñ ci bu ko kenn yëg waaye télévision la ko wax direct yow nga nekk ci moom mu lay defal xam nga ne bis a ngi ñëw si bis yi dana ko waxi loolu am Sénégal gépp la ku la nit ku la bari na ñoo xam ne amuñu sutura buñ la jëndaloon xar pour nga tudd sa doom bis bu doom ji màgg ne ko papa diw nangam mu ne ko ah pourtant dafa réew rek de waaye xaru tabaski xaru xaru biñ ko tuddee maa ko jënd ci alalam ndax baay yoru baayam yorutoon loolu la góor war a bañ bañ ko bañal ko njabootam foofu laay waxee nag nit day gëm boppam dem liggéeyi lu ko yàlla may mu xam ne lii la ma yàlla may lu mu ñàkk xam ne lii yàlla moo ko xañ fii la wërsëgam yem mu yem fa waaye yow nga bëgg a xëy rek toog ci benn lal yow joom nit ki nu lay jëndalee oto quarante cinq millions jël kër gu presque gu mat cent dugal la ci yàgg sa njaboot loolu loolu loolu moom loolu loolu loolu loolu moom xanaa kat moo kan moo ko mën ci àdduna bi kooku lu mu def loolu di nga ko def waaye nga bàyyi ba génn léegi nga génn ci télé yeeg rajo yi naan am na lu bari lu ma xam waxuma ko loo fi waxati kenn dootu ko gëm dañ la doon joxeel dépasse di la ngénteel say doom jeex na jeex na demal jàpp amal ngor nga jàpp ci yàlla nga dem uti leneen man loolu laa gëm d'accord jaajëf Pape maa ngi ñëwaat ci yow euh, balaa ma ñëw ci Dramé Ousmane Noël Dieng yow mi nekk ci kaw ñëwal tijjil sa micro bi. waaw ah, salaamaaleykum maa leen di am na ñu nekk ci ligne bi waaye bokkuma leen jëlaat boole leen coow li di gën a bëri dama bëgg bu ñuy pare ma gën a ñëpp bàyyi fi Pape. waaw ah, salaamaaleykum Aliou waa pare bu ma paree ci Ousmane Noël Dieng yow laay jox parole. waaw maa leen di siyaar bu baax a baax. Adja <laughs> Ousmane Noël ñëwal. waaw ah, salaamaaleykum maa leen di siyaar yéen ñëpp. Ousmane Noël yokkal sa baat bi nag dégguñu dégguñu bu baax de. ma ne maa leen di siyaar maa leen di siyaar. waa ñu ngi lay fay. waa di rafetlu di rafetlu waxtaan yëpp déglu naa lépp wax dëgg yàlla kenn ku nekk rek déglu nañ sa contribution. waaye daal man na lu may wax ak bëreeg a gàtt rek maanaam euh, sénégalais. Uh-huh. dafa bëri ñu mën a tooñ. Uh-huh. waaw ndax tooñ weesuwul yow. Uh-huh. waa ji xam nga ne waa ji kenn xam ko ñu ngi ko doog xam tey nest pas man maa ko doog gis tey. waaw. premièrement lu may man lu may wax Ahmed Khalifa Niass bu doon fay dina fay keneen ku am tur koo xam ne nii maanaam bu waxee ñëpp dinañ ko bàyyi xel wala ñëpp dinañ a seetaan bu doon fay rek la bëgg wala ku yàq Ousmane Sonko yaakaar naa ko am tur lay wër koo xam ne bu waxee ñëpp dinañ a bàyyi xel pas muy fay kii ko xam ne maanaam dund nga ak o lu ëpp 30 ans say doom yëpp juddoo këram léegi nag man lu ma jàngat bu ma ci am jàngat bu ma ci am sénégalais yi tooñkat lañ xam nga lu tax ndax képp koo xam ne rek dal nga si ma ko képp ku dal si kawam rek da la demee ak xamoo lan moo dox seen diggante ba problème bi am yàgg nañu ànd Ahmed Khalifa Niass ak Ousmane Sonko yàgg nañu Sonko wax na fi Ahmed Khalifa Niass lu ne am na wala amul ah réew mi boo ko bëggee naa boo ko bëggee da nga si dëgg ku nekkul si dëgg nga nekkul si dëgg waa ji ak Ahmed Khalifa Niass kenn xamul luñ jotee loolu waa ji moom am na ay preuve yoo xam ne ba fa nervi yi ñëwee est ce que am na preuve yoo xam ne ba muy wax ak Ahmed Khalifa Niass boo ko Ahmed Khalifa Niass naan ko yàqal ma Ousmane Sonko loolu kan moo premièrement tooñ fa la commencé fa la yem xam ne yow xamoo problème nan la demee amoo si benn preuve bu la leer ak ku mënta doon rek soo duggee wax Ahmed Khalifa ñuy ñes loo xam ne waroo koo wax tooñ la fa la tooñ commencé fa la yem ndax xamoo am fayda ñi ay ndaw lañ mun na dem liggéey comme ñëpp nit ki boo ànd ak moom ba yàlla def ngeen am problème bul génn si télé bul génn si réseaux sociaux bi pour yàqu ko mënul ndax nit ki même bu la yoroon si benn fan sax ak lu mënta def rek mën a ne tuddee nga problème bu leen boole ken xamu ko xamu leen problème kañ la commencé am xamoo Ahmed Khalifa Niass yàgg na ko wax alma sama xamuñu yàggul ko waa wax kon dèjà mhm. buñ sukkandiku si waxu rek ñu xalab Ahmed Khalifa Niass di ko wax war ko war a wax bu doon man mi sax waruñu ko wax Ousmane waaw waaw xam nga bokk waxtaan donc ñun ñi ñëwuñu pour jox euh, ñëwuñu pour jox euh, non non non man maa ngi déglu ma ma ne. waaw ah. ngi déglu sa waxtaan yéen a ngi koy teg si ak waaye am na ñoo xam ne tey ñu ngi jox Ahmed Khalifa Niass toor maa ngi déglu waxtaan yi am ne laa la wax. man mm, waxuma la mm, yow mu mm, taal laay yow mu taal laay bi yaa ngi koy réalisé kenn ku nekk bu la mu a wax ma ngi koy wax waaye ñey maanaam ñey jàll baat Ahmed Khalifa Niass ñoo tax may wax. problème la problème ñëw na waa ji moo génn wax benn version lañ dégg Ahmed Khalifa Niass ba léegi waxul ak njabootam waxuñ kon maanaam amaguñ fenn fuñ sukkandiku bay dal si deuxième leen wala ñu ko mérito waaye diggante ni dég leen am problème da nga ne am kër léegi ëllëg kon yéen ku wax si Ousmane Sonko dara rek na na di diw moo doon wax si Ousmane Sonko rek ngeen utal ko kër wala ngeen defal ko kañot gis nga nit nañ bàyyi seen yooyu gis nga nit ki boo amee nit problème am na beneen solution boo mën a dem nga dem jaayanteeg sa ngor moo gën ngay génn di jël kenn di ko dóor si kaw Ousmane Sonko ne Ahmed moo may wax lii Ahmed Khalifa Niass buy wax day waxal borom tur lay fay ñu de xeexal ko looloo ëpp solo foofu moom ñuy waaj xam ne kenn xamu ko tey man waa tey waa ji boo xoon ci Ousmane Sonko dara ko bu wax wax bu nekk nit nit ñi nañ nañ réaliser ànd ak seen xel ñu xam ne kii lu muy wax waxu kasaw kasaw la kii lu muy wax waxu ndimbal lay wër nit la dara nangu nañ sama moo fi ne yàllaa fi nekkal ñëpp damay dem jaayante ji ak lu ñu ta jotee rek damay fàtte lépp ma dem liggéeyi waaye pas may taxaw si si réseaux sociaux di xaawi sama sutura di weer sama bopp pour bëgg ndimbal loolu taxul nga am ndimbal wala pour bëgg waa kër Ousmane Sonko ne ah Sonko lay xeex moo tax nañ ko jàppale nañ ko wutal kër